asalaamaaleykum uh, uh, Seyid Muallim ñu ngi lay uh, nuyu bu baax di la ziyaare di nuyu mbooleem auditeurs yi ak téléspectateurs yi nga xam ne ñooy suivre As-Samadiyya TV di am mbégte lool ci sa laaj yi laaj bu jëkk bi mooy ne Iran comme niñ ko xamee woon démb moo doon seen élection présidentielle élection yooyu nag mu nekkoon deuxième tour ci élection présidentielle yi Euh, nga xam ne résultat finaux yi euh, génn na euh, mun nekkoon jongante boo xam ne kuñ de docteur Masoud Pezeshkian ak docteur Saïd Jaridi ñoom ñoo ko ñoo doon jongante ci biir loolu nag génn comme résultat mooy ki nga xam ne mooy Masoud Pezeshkian nekkoon daanaka ki représenté camp réformateur yi Euh, ak modéré yi moom moo gagné ci cinquante trois pour cent euh, virgule euh, six mooy tolloog seize millions trois cent quatre vingt mille quatre cent trois ki muy Saïd Jalili moom mu am quarante quatre pour cent virgule trois muy treize millions cinq cent trente mille. 173 voix ci total boo xam ne ñi nga xamante ne ni moom mooy total des votes mu nekkoon 30 millions 530 mille 157 électeurs euh, donc mu nekk loo xam ne lu am solo al aswaatul baatila muy li nga xam ne moom mooy euh, vote yi nga xamante ne ni dañ ko annulé mooy bulletin invalide wala bulletin nil mi ngi toll ci 466 mille 900 90 li nga xamante ne ni mooy nisbatul musharaka muy taux de participation mu ngi nekk ci 49 point 8 pour cent euh, donc mu nekk loo xamante ne ni euh, saabiqiya la surtout ci wàllu euh, participation foofu en Iran comme ni nga ko waxee ci sa ci sa laaj Euh, ki nga xam ne nag moom mooy euh, docteur Massoud euh, Pezeshkian moom ci jëmu boppam gannaaw bi nga xamante ne ni jël na raw gàddu gi mi ngi gane àdduna ci 1954 ci dëkk bu ñu naan Mahabat ci province Azerbaïdjan Garbi Azerbaïdjan Garbi moom mooy Azerbaïdjan ouest occidental ci maanaam mbéj gànnaaru Iran euh, foofu aussi la màgge ci famille boo xam ne famille bu engagé la ci wàllu diine waaw juddoom nag euh, ganeem àdduna euh, bi mu amee ba pare li mu njëkk a def moom mooy ñu dugal ko ci école jàngal ko def na cycle yëpp primaire secondaire ba supérieur génné diplôme ci walu li ñu tuddee sinaat al ghizaiya muy manam industrie alimentaire ci la njëkk génné en 1973 def na euh, euh, maanaam li ñu tuddé service militaire ci gannaaw loolu bi nga xamante paré pare na ci service militaire am euh, fekk def na aussi li nga xamante en même temps ci walu njang médecine ci la génn mu nekk médecin euh, en 1975 gannaaw loolu nag ñu nangu ko mu nekk étudiant ci médecine ci université bi nga xamante ne Tabriz Tabriz mbéj euh, Iran la la nekk donc ci commencement wu guerre bi en 1980 80 euh, docteur Pejishkian nekk na responsable bi nga xam mo nekkone di yonne équipe médicale Euh, yi nga xamante ne ñoo doon dem ci ci xeex ba ci guerre ba ci front yi waaw mu moom it euh, ci jëmu boppam non seulement da doon yónnee médecins yi pour ñu dem euh, di faji ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi gaañu waaye moom it daf ci doon ànd non seulement dafa doon nekk responsable waaye daf ci doon ànd di dem di xeexi di faj aussi en même temps donc <coughs> ci gàttal ci wàllu njàngam donc nekk na ba 1985.

ci wàllu euh, taxasus al jirah al am muy maanaam spécialisation ci wàllu chirurgie générale ci euh, li nga xam ne moom mooy université bu euh, Tabriz nga xamante ne ni université bu prestigieuse la 1993 nag ci la am nag maanaam beneen diplôme spécialisation fi jiraaxil qalb muy maanaam li nga xamante ne moom la ñu tuddee chirurgie cardiaque waaw maanaam ñu am nga xamante ne dañoo am xol euh, bu ñu am xol feebaru xol ci université bi nga xamante ne ni mooy Tehran donc mujj bi ñu jël ko mu nekk directeur euh, hôpital Shahid madeni nga xamante ne ni day toppatoo lépp luy wàll wàllu cardiologie ci ginnaaw loolu la nekk euh, njiit ga li nga xam ne moom mooy yëngatoon ci wàllu politique mu ngi commencé à 1994 moom la ñu taboon def ko mu nekk euh, raïs gannaaw bi nga xam ne nekk na président wala recteuru université bu Tabriz ci wàllu médecine mu ba euh, loolu nekk na fa pendant presque six ans ba 2000 bi mu fa jógee 2000 ci lañ ko yóbbu Téhéran mu jël euh, maanaam nome ko poste vice ministre de la santé ci jamono euh, euh, ayatullah xaatami waaw mu nekk foofu euh, pendant six mois gannaaw loolu ci li nga xamante ne Mahamad xaatami amaat na deuxième mandat ci la ko jox mu nekk ministre de la santé gannaaw bi nga xamante ne ni comme niñ ko xamee parlement ba xam ngan foofu ba ñuy tabb ministre ci parlement bi lay aw ko approuvé ñu doog a ko nommé nangul ko buñ ko approuvé wul dañ koy rejeté waaye mm, fàttaliku nañu lu difficile la woon jaaram foofu pour que ñu nangu postam donc euh, ba 2013 euh, euh, ñëw na moom it ki nga xam ne mooy docteur Pezeshkian pour nekk bokk ci joŋante yi 2013 pour nekk président de la république bu Iran. waaye euh, ki nga xam ne mooy candidature am ki ko bloqué mooy majlisu siyaanatu dustur mooy maanaam euh, conseil euh, pour la préservation du de la constitution ko ñooñu ñoom ñoo ko baare ba candidature mujj ñu ko nangu ba 2008 ci 2008 nag lañ ko doog a nommé comme député nommé ko député muy représenté province su Tabriz Tabriz mooy fi nga xam ne moom foofu la gane àdduna li nga xam ne moo jëm euh, ci sa laaj ci wàllu euh, siyaasa alxaarijiya mooy maanaam politique étrangère mam dem ci wàllu bitim réew euh, ki nga xam ne nag mooy gisinu président bu bees bi mooy docteur Massoud Pezeshkian nee na kenn mënul régle benn problème Iran lu dul dafa da ngaa régler problème yi nga xam ne moom la Iran am ak maanaam bitim réew waaw donc muy euh, wax foofu euh, maanaam euh, li nga xam ne moom mooy décision wala yéene bi mu am ak jëflanteeg lépp loo xamante ne ak ñëpp ñi nga xam ne mën nañu jàppale Iran ñu jàppalante ba nga xamante ne ci wàllu di di sottantey xalaat ci wàllu waxtaan ak euh, mbooleem réew yëpp ba nga xamante ne ni réewu Iran dina jëlaat place am bi nga xam ne moom la yàgg jël ci monde bi waaye aussi dina ko dimbali ci développement euh, euh, ci ay mbiram mu nekk relation yoo xam ne yu constructive lay doon donc moom mi nga xamante ne ni moom mooy docteur Pezeshkian ba tey ci wàllu politique bitim réewam nee dafa bëgg ay relation yoo xam ne Iran daf koy am li jëkk moom mooy relation yoo xam ne yu baax yu taxaw yu yu ñuy rafetal yu ñuy naatal diggante euh, Iran ak réewu xarb muy maanaam ak duwalul xarbiya muy réewu Occident muy réewu tubaab yi te ci jiitu moom mooy Amérique waaye tegu ci ñetti ponk ponk bu mooy mooy al izza muy fierté yëg sa bopp ak xikma ak lu ñu tuddee sagesse mooy yeewu xel ak maslaha mooy intérêt nga xam ne kenn ku ci nekk ci jëflante gi da nga ciy gis sa intérêt waaye dañ ciy jëm ak xel ak xalaat waaye respecté keneen ki wax na aussi moom ci jëmu boppam dina def ci li nga xam ne mooy priorité am mooy urgence am moom mooy li nga xam ne mooy euh, euh, euh, accord yi nga xam ne amoon na accord nucléaire yi loolu ci jëmm boppam dina ci dina ko yëngalaat dina ko yeewaat dina ko delloosiwaat bu ko defee ñu continuer di def négociation pour accord nucléaire yi mun parce que nee na loolu euh, maslaxa Iran la intérêt Iran la euh, donc loolu moo taxoon sax intérêt boobu mu nekkoon intérêt Iran moom la Trump gis xam ne accords yi Iran lay gën a euh, favoriser lay gën Euh, réglé ay mbiram ko ñoom américains yi moo tax Trump ñëw mu yàq ko comme ni mu waxee ne aussi Iran ci jëmu boppam dina ñëw dugg ci duggaat ci li nga xamante ne ni moom mooy PAFT PAFT mooy majmuatul amal al mali ad duwali muy maanaam groupe d'action financière internationale bi nga xam ne Iran daf ko euh, maanaam génnoon dañ ko ci génne woon mais dina essayer fexe loolu aussi mu Iran duggaat ci pour mën soqali eh, taxawalaat li nga xamante ne ni moom mooy njaayanteem ak njëndanteem ak yeneen dëkk yi li jëm ci wàllu eh, politique am nag politique eh, économique am wax na ne il faut que maanaam partie yi nga xam ne ñooy parti politique yi ak yi nga xamante ni yëpp ñoo aju ci wàllu économie ñoom ñëpp di joxante loxo fexe ba nga xam ne ni jafe-jafe yi réew mi di dund muy Iran ñu man cee dimbalante bu ko defee euh, euh, Iran génn ci situation bu mel noonu euh, te nag loolu mi ngi am ci ñu dimbali ko ci ay xuba xubaraa yi ak almutaxassisiin mooy ñoo xamante ne ni ay compétence lañu yu avéré ci wàllu xam-xam soit ci wàllu économie wàllu commerce wàllu politique wàllu diplomatie wàllu domaine yëpp yi nga xam ne réew daf koy soxla dana soxla ñëpp ñu daje joxante loxo pour que loolu mën a am ñu génnee Iran ci yenn jafe-jafe yi nga xam ne mu ngi koy dund waaye aussi euh, dig digg na maanaam ñi nga xamante ne ni mooy problème mu liggéeykat yi ak ñi nga xam ne retraité yi ak yenn fonction ak fonctionnaire yi ak ñi nga xamante ne ni dañuy liggéey waaye seen liggéey gisuñu ci seen bopp mu ni dina fexe ba ñooñu aussi ñu améliorer seen condition xeex ak ñàkk xeex ak li nga xamante ne ni moom moo indi disparité maanaam maanaam euh, ñàkk euh, ak maanaam wute gi ba mu jur li nga xam ne moom mooy corruption ca ci réew ma donc euh, ci foofu ci wàllu toujours comme ni nga ko laajee ci wàllu iqtisaad mooy wàllu économie moom ci jëmu boppam taxaw na daal temb ne nañu taxawal euh, euh, fexe ba nga xamante ne ni euh, Iran ci jëmu boppam dina mën a jëflante ak nit ñi jox leen li nga xamante ne ni moom mooy seen warugar mooy seen àq bu ko defee ànd ak ñoom lépp loo xamante ne dafa jëm ci saytu defar li nga xam ne moom mooy réew mi tabax ko ni nga xamante ne noonu lañ ko war a tabaxee parce que xam na ne kenn rek mënul tabax réew ma waaye ñëpp ñoo war a joxante loxo bu ko defee ñu mën a taxawal réew mi mu continuer di dox ni nga xamante ne ni noonu la war a doxe waaye it aussi euh, moom euh, docteur Pejishkian digle na euh, ci maanaam wax ci dina taxaw temb ci lépp loo xamante ne dafa jëm ci droit de la femme maanaam àq ak yelleefu jigéen ñi ak ci wàllu liberté xorriya ak aussi fexe ba nga xam ne liberté boobu dina may nit ñi ñuy mën di dem ci internet te kenn du ko couper danga ak mbooleem ñi nga xam ne ñooy droit des minorités yi nga xamante ne lu mel ni juif yi ak chrétiens yi ak zoroastriens yi nga xam ne ñoom dañoo am seeni député te nekk foofu ci ci Iran euh, ci ci parlement wu Iran ak mbooleem li nga xamante ne aussi na ci taxaw Euh, liberté yi nga xamante ne ni politique la ak social yi nga xam ne yooyu ay xawmiyaat dusturiya nga xamante ne ni mooy nation wala nationalité yi nga xamante ne ni ñi nga foofu ci Iran bu ko defee ñoom ñëpp kenn ku ci nekk di nga mën a gis sa bopp ci wàllu euh, siyaasa ak ijtimaaya wàllu ci wàllu politique ak ci wàllu social euh, li jëm ci sa jëmee ci président bi kañ lay euh, euh, lan mooy ay euh, pouvoir am ak kañ lay maanaam jël pouvoir bi waaw ki nga xam ne nag li nga xam ne moom mooy constitution wu république islamique bu Iran comme niñ ko xamee structure bi politique bi dafa nekk loo xamante ne dafa wute ak yeneen yi parce que bi ci kaw dafa am comme niñ ko xamee ñaari institution institution élue ak institution non élue maanaam yi nga xam ne dañu koy maanaam ci vote lañ lay aw électorat bi moo moo koy taxawal ak yi nga xam ne guide bi moom moo koy guide bi mooy al murshid al ala buñ ko dee wax fii comme xalif général moom mooy nommé ki nga xam ne nag mooy institution élue yi nga xam ne dañ koy nommé waxoon nañ ne ci électorat lay génn mooy président de la république gouvernement bi mooy génn ci moom majlis bi aussi ci ci ci ay électoral, ak yu ci yooñu lay génneem conseil des gardiens de la révolution mooy majlisul khubara aw majlisul khabregan euh, ci seen làkk ak assemblée des experts bi nga xamantene ni moom mooy dajale euh, chouraye al euh, nagaxbaan mooy maanaam ñi nga xam ne ñooy garder constitution bi donc donc ci biir loolu euh, dana nekk lu am solo ñu xam ne aussi gidd bi ci wàllu moom it dafa am ñoo xam ne ñoom lay ñoom lay nome lu mel ni forces armées chef du système judiciaire mooy al quwa al qadaaiya ak conseil de discernement mooy majlisu tashxis li maslahati nizam al islami yooyu yëpp moom ci jëmm boppam guide bi moom moo koy nommé mu nekk loo xamante ne ni lu am solo pour que nous nous ñu xam ko euh, aussi comme ni ma ko waxee woon moom mooy nommé directeur euh, radio ak télévision aussi le yëpp qui le la la la la nekk mu nekk loo xam ne solo aussi ñu xam ko ki nga président de la république moom le président de la république dañu koy élire ci suffrage universel direct mandat ku nekk am nga sa baat boobu ngay joxe ci mandat wu quatre ans yoo xam ne dañ koy mën a renouveler di ko beesalaat benn yoon waaw donc xam nga ne bu ñu delloo ci histoire ki ci jiitu woon moom mooy Abul Hassan Bani Sadr nekkoon président bu la république islamique bu Iran tey ki nga xam ne moom moo ñëw tey ñu di ko war a wuutu démb ñu nome ko muy euh, docteur Masoud euh, Pezeshkian moom mooy neuvième président bu la république islamique bu d'Iran donc lolu mu nek lo xam lu am solo léegi nak pour que ñu accepte la nangula pour nga nek président de la république ci Iran selon ni nga xamante ni non la ko conseil des gardiens de la constitution du du di waxee di bëgg comme ci chartam moy ne candidature bu nek présidence de la république dafa wara am ñenti jikko yi moy benn bi nga nek chaxs maanaam personnalité religieuse waaw ou politique reconnue nitu diine d'abord waaw nitu diine lañ ci gën a taamu bu ñu amul nitu diine bi nga xam ne dafa am ne jaami sharaait nga xam ne mboolem condition yi ragal yàlla ngëm gi ñeme gi tab gi ak yooyu ak eh, tab tab gi yooyu bu amul bu nekkul ci tegul ci nitu diine bu nekkee ci nitu politique nii rek moo xam ne borom xam-xam la ñu mel ni comme ñoom Ahmadinejad ak yu demee noonu dañu koy accepter mën nga mën nga ko nekk waaw donc ñaareel bi mooy nga nekk de nationalité iranienne nga nekk de nationalité iranienne maanaam nekk sa nationalité iranienne waaye aussi nga am certificat de bonne conduite bu baax nit ñi xamee la mbaax waaw nit ñi xamee la mbaax koo koy ñetteelu condition bi ñeenteel bi mooy nga nekk koo xam ne da ngay nekk ku dëggu ku baax ku ku bëgg lislaam ak ku respecté topp li nga xam ne moom mooy an nizaamul islami mooy le régime de la république islamique d'Iran léegi nag ki nga xamante ne bu ñu demee ba le août ci mois d'août euh, ci la ñuy nommé maanaam ci lañuy def prestation de serment nouveau président bi doog dugg bu ko defee moom ci jëmu boppam ci diggante bi euh, fekk dossier yu mag yëpp euh, jox nañ ko ko commencé na ko euh, jël benn par benn xam li nga xam ne moo war a nekk ci ci place am ëllëg bu fekkente ne ni jël na jël na nguur donc comme ni nga ko xamee ci gàttal daal mooy ne Iran wanewaat na ndekete pays la boo xam ne des institutions maanaam Euh, du nit ñi ñoom ñooy institution yi mais dañuy def ay institution maanaam ay ay taxawal ay ay ay ay mbir yoo xam ne ci la nit ñi war a aw ay yoon ba nga xam ne nit ñi dootuñu compter parce que nit ñi dañuy dem mais institution yi dañuy des bu ko defee mu nekk loo xam ne dafay am solo mu dëgër te lii gis nga ko amul benn problème amul contestation comme ni nga xamante ne noonu la amee woon ci États-Unis wala ci yenn dëkk yi waaye ñëpp dañu d'accord ci résultat yi avant presque 3 heures du matin fait que ñun jot nañu euh, résultat yi euh muy yi nga xamantene mom la sen euh, conseil constitutionnel euh, publié donc lolu aussi da fay dafay wat rek nekkat benen modèle d'exemple de démocratie mais de gestion du pouvoir bi nga xamné ci turu diine l'islam euh encore ñëwaat na mu nekk ndam pour islam nekk ndam pour julit ñëpp fu ñu mëna a nekk donc di di wax ne rek lii yëpp nag résultat wu taxliya la ak ak taqiya taxliya mooy denc lépp loo xam ne sunu mag ñi xam nañ ko maanaam dafay wuteeg diine l'islam muy le dépouillement ci wàllu xalaatin ci wàllu demelin ci wàllu gisin ak yooyu ànd ak taqiya nag maa nag xel ak xalaat di moytu maanaam ba nga xamante ne ni li fi nga bëgg a àgg di fa àgg parce que bu ñëpp xamee fi nga bëgg a jëm doo fa àgg di am mbégte lool vraiment di di ñaanalaat mbooleem ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy ñuy déglu du ñu suivre euh, di ci teg ca bopp muy samahatu cheikh euh, Abdou Samad euh, ibn cheikh Chouaïbou mbake di ko ñaanal yàgg ak wér ak mbooleem ñi nga xamante ne ni moo ko waxee mooy déglukat yi ak téléspectateurs yi ak télévision bi nga xam ne As-Samadiyya nga xamantene ne ni moom mooy assamadiya muy sawtu sumuud wa sabra wal musabara wa sawtul xaq jërëjëf